Euh, maître Moussa Diop yaakaar naa yéen ñëpp gis ngeen sortie bi mu def moom la def tey mooy dafa wax ne Ousmane Sonko daf leen a woo ba mu ñëw mën a leen soxlaatul coalition Diomaye 2024 bi ginnaaw bi ñu ko jàppalee ba pare maanaam na waxi yàq daal Moussa Diop yéen ñëpp xam ngeen euh, Moussa balaa may wax ay waxam damay leeral li am ba pare pour yéen ñi xamul président Sonko waxul soxlaatul coalition bi de waxul soxlaatu leen de maanaam daf ne élection yii di ñëw. manam bañeeru Pastef lañu démé manam dinañ ànd dé ñom ñi àndoon ñom ñëpp dinañ dem mais du doon coalition bañeeru Pastef lañu démé xam ngeen lan mo waral lool élection locale yi législative yi jall dafa am luñu ñu coalition defoon moy bi coalition bi jallé parti bu ne daa jël ay député ndax bu dee coalition mo la ki bu la nexé bo jall élection yi jallé nga demal sa bop dara la ci fekk mais bu dee parti mo la investir bu élection yi ja bu boo assemblée. bis bo woré parti bobu wala nga bayyi ci parti bobu da ngay perte sa mandat député loolu motax pastef lañu démé kumu neex nga ñëw bokku ci kumu neexu nga sét sa yoonu bopp dem PDSO kum man di doon ci bañeeru pastef ngay bokk so génné war du am manam Ousmane Sonko ci bopam kenn da ko dul wor diko worat diko worat jeexna ñaar yoon man na né mais ñett yoon du am lim leen wax lu leer nañ la moy ci pastef lañu démé demewuñ ci turu coalition jomaay président ci pastef la ñuy demee nga xam ne pastef mooy dem mo mo turam récipiceem la ñuy dugal maanaam euh, kéem la ñuy dugal nu mu tuddati caution la dugal turam la ñuy dugal chet bu ñuy déposé affaire yi nga xam ku wor wala nga bàyyi ñàkk nga sa poste député da ngay génn assemblée kenen dugg mooy li dalon mimi touré ak APR lolu moy li xew xam lan la ñuy bañ fal nañ président ba pare fal ay député ba pare ñu pare élection yi jeex ndax waa PDS fi ñu toll daf mel ne ñun lañ ko bëgg a sës élection yi jeex PDS naan am naa fi fanweeri député kenn naan am naa fi nangam kenn naan am naa fi nangam kenn ku ne di wut sa groupe parlementaire du am li am li am bii yoon bés bu ñu yàlla mayee xaw ma ñaata député la doon ñëpp député wu majorité la ñu doon ñëpp député la député wu peuple bi la ñu doon. pour muy leer amul député yu fu yoog naan suñu suñu président moo fi indi lii suñ parti moo am lii déedéet benn parti mooy am mooy Pastef kum neex nga toog kum naqari nga dem Moussa Diop nag yow yow moom mënoo ñëw kii dara ndax yow benn candidat bu posé woon sa candidat ci élection présidentielle nga amuloo amuloo parrainage nga ñëw. man Moussa Diop loo posé moom ma jaaxal ba yow sax bàyyi war ñu xanaa ñaaw làmmiñ ñaaw làmmiñ daal def nga ko yaag Aïssatou Diop Fall benn ngeen da ngeen ñaaw làmmiñ sa dem bon vent. Moussa Diop nuyul ñu waa nga jóge nuyul ñu waa jëm ay waay kontaan naa. salaamaaleykum mën gars yi daa am question bu leen bëgg a posé bu leen bëgg Lat Diop xanaa daa yoroon nat ab nat man de dama gis maire yi démb ñuy fëlañ fëlañ ñi di jooy rek muñ leen bu génnee yéen ñëppay teggi Lat Diop waaye kat daa yor nattu nattu maire yi <laughs> démb dañ xaru ca di jooy dindi seen musóor yi daanu fëlañ fëlañ sama xel dem ci loolu ma ne est ce que yorul mot nattu mbootaayu maire yi waaye Mary daa yor nattu maire yi de maire yi yaakaar duñ teggi mais yéen ñëppee teggi bu laat génnee moom kay kañ lay doon problème mais muñ leen rek da ngeen teggi si kàttanu yalla, yéen ñëppee teggi muñ leen waaye yéen laat fu mu fanaan yéen xam ngeen laat fu mu fanaan yéen dañ naan yéene nekk la baroma cay fanaan laat saaga fi nday Ousmane Sonko lu ne nga wax wala yow liñ ne yaa ko def xbet lépp Lonase ay lat yaay doon